bisimila may leen ma nopp ma dayati leen yeneen ci ay xibaar moom député APR ba woon di Seydina Fall Bougazelli xam na ca biir prison ba moom mi yoon tegoon loxo weer yu mujj ci at mii ñu weesu ba tëj ko ci kasab Rebeuss ngir trafic de faux billets de banque muy député euh, Seydina Fall Bougazelli ba woon dafa ame jabet ànd ak loolu yaramam neexul dara dafa tawat tawat bu métti ba jaaxal ñépp jamono ji xelub kenn dalul ci nekk nam ci yooyu le barab donte ab prisonnier VIP boobu la chambre 40 bi nga xamante foofu la ñu ko dugal moom député ba woone di Seydina Fall Bougazelli naqar ak wéradi lay dund foofu le ca biir prison ba yaramam neexuloo ba tax lu bari ci ay jege ñaaleem ak famille dëgg-dëgg dañoo am jaaxle ci nekk nam foofu mel na ni jamono ji ñu ngi ko téye ci infirmerie bu kasob rëbës te def na fa ay fan yu baree bari ngir feebaru jabitam boobu ko sonal lool waaye feebar ba doy na waarde ndax daanaka wax nañu ne ñaar fukki fan ak benn ci weerub janvier bi ba léegi ca la defoon ab crise boobu ba léegi ma foofu ñu téye tane na ndax mbir ma daa mel ni luy yokk loolu sax moo waraloon bu ñu sukkandikoo ci yenn ci suñu informateur yi jot dañ ko yóbbu ca l'hôpital Le Dantec ngir mu amal fa ay paj yu mën a dalal yaramam ba mu bàyyeekoo ci boobule l'hôpital ba léegi nii fële ca kaso ba paj maa fay wëy ñu di ko saytu bu baax a baax ana lan la administration pénitentiaire ba wax ci mbir mi bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu ñu ngi dalal xelu ñëpp di xamle ne rek mbir mi amul lenn loo xamante ne ni war nañ ci mën a jaaxle jaaxle gu rëy bu ci kàddu ba administration boobu boobule te itam a ñu ngi koy jox ay paj yu mucc ayib ca na mu waree ànd ak loolu di ko saytu saay su ne waaye mu mel ne yooyule kàddu dalalul xelu militant ya maanaam ñi faree ci moom fële ca golf ca géejawaay loolee tax na ba ñuy dankaafu di wax ne dinañ amal ab mobilisation de soutien maanaam woote ab ndaje gu mag ngir daal di taxaw kookulee di Seydina Fall Bougazelli nekkoon ab député APR jërë ngeen jëf